permet de limiter les déplacements des militaires et de leurs familles, ainsi que les élèves et stagiaires qui disposent désormais sur place des services de qualité. L'école d'application. Euh, jean de la condition militaire, il faut saluer les importants efforts de l'Alpha qui ont permis de reprendre le camp des mariés ainsi que les célibataires aux officiers et sous-officiers. Les militaires de la zone militaire numéro 7 ont également bénéficié des mesures générales par le président de la République relatives au salaire, indemnité et plan en opération qui ont connu une augmentation considérable. Au total, le bilan auquel nous sommes parvenus durant ces trois années nous offre beaucoup de motifs de satisfaction. Je voudrais à cet égard saluer l'engagement du CEMAT et du CEMER, ainsi que les directeurs de service qui ont fait montre une très grande réactivité dans la montée en puissance de ces structures. Je vous engage à rester fidèles aux idéaux de la République et continuer à servir notre pays dans la discipline, l'abnégation et le respect triple des fondamentaux du métier des armes. Je vous exhorte donc à maintenir le cap, à toujours être à niveau pour rester des professeurs efficaces. En effet, au moment où se profilent des menaces fois à nos frontières, les armées demeurent plus que jamais les remparts de la cité. En particulier, je vous exhorte à veiller particulièrement sur la sécurité de la base. Soyez également soucieux et exigeants pour que les infrastructures soient bien entretenues afin que nous puissions les léguer aux générations futures. Pour terminer, je félicite le commandant, de la zone militaire numéro 7, le colonel Matem ses chefs de corps et l'ensemble de, son personnel. Et au sein de la nouvelle année, je présente mes meilleurs à vous tous. que Dieu garde nos armées. Je vous salue. On nous tue, on nous déshonore Le général des armées ci Thiès a mais ce que nous Thiès une dafa am beneen signification ce sama ñëw nous chef général des armées bu ma ñëwee fii ba léegi deux mille seize li ma ñëw Thiès bari na ànd ak officier yi ma leen waxal léegi muy muy samay collaborateur direct ñëw di leen déglu di xool nan ngeen nekk nan ngeen di liggéeyee di leen déglu ci lan mooy seen mébét ak nan lañ mën a def ba jël wut mooy yoo xam ne danañ mën leen nekkal ci condition yoo xam ne di ngeen mën a liggéey ci jàmm seen njaboot aussi nekk ci jàmm Thiès dëkk la boo xam ne dëkku garnison la mooy dëkku soldat la soo ñëwee Thiès muy soldat bu mën doon muy officier rawatina officier yi ñu bari ci ñoom bu dul ñëpp sax mën naa wax ne ñëpp ci ñoom jaar nañ di jàng si jaar nañ fii di encadré jaar nañ parce que nous leen affecté jaar nañ leen fii ndaxte ay instructeurs lañu ci diggante formation yi xam ne nekk na fii Thiès boo ñëwee Thiès gis armée de l'air nga commencé bég ndaxte daf lay fàttali dañuy fàttali ñun lu bari ndax Thiès amoon temps yoo xam armée mais léegi soo ñëwaatee fii lu tax mu ñu fàttali soo fii Thiès nga dégg avion yi naaw nga dégg commando yi di woy euh, cavalier pour fi nga nekk gën a rafet fi nga nekk mën a nekk place boo xam ne mën nañ fee liggéey

ñuy góorgóorlu pour que centre yooyu am ay jël am ay dëkkandu foo xam ne mën nañ faa dëkk am jumtuwaay yoo xam ne képp ku fi mën a ñëw dana xam ne ñii kat condition yi xam ci arab lañ nekk di ñuy ñeet ñu ndax ñu ñëw mën a tàggat seeni soldat fii moo tax même organisation civile sax ñëw fii pour di tàggat seen yi ñu bëri gis nañu waa Croix Rouge ou ak ak bari ñoo xam ne dañuy ñëw fii di seeti semence pour mën a tàggat seen i nit ñoo xam ne ay civil lañ sax ñu ñëw leen parce que métier la paix soo koy def liggéey armé ak ay civil nan ngay ba aar xale yi nan ngay def ba aar jigéen ñi nan ngay def ba aar population yi xam ne ay civil lañ donc centre yi def nañ suñu. kanam doon ay ba nga xam ne am nañ moyen yu mën a liggéey soo ñëwee ci bataillon yi ici boo taxee fii nga gis ne dangay sa xol day set parce que bataillon la bu leen mu jëm kanam bataillon commando ji jëm kanam école de l'armée leen ji jëm kanam centre yi également seeti set jëm kanam ak gàmmu ñoom ñëpp foofu taxaw rek da gis ne gars ku ne di def pour ne man maa gën a baale mais ci muy bu rafet

ndax famille bu nekkee suñu wér suñu xel mën a dal mën a def mission mais nag famille aussi bu fi nekkee yéen si ñoom ñoom pour que seen kër yi ñu mën leen toppatoo mënoo def ay kër yu rafet yoo xam ne soo jëloon officier wala sous-officier ku mañ doon ku ne day bëgg a dëkk ci kër boobu nga jël ko bëgg ko def ay poulailler wala dafa def lu ma xamul yéen ci seen bopp ku nekk ci boppam dafa war a xam ne fii ñu ko defal pour sama njaboot nekk tranquille su seen njaboot yi nekkee tranquille da ngeen mën a def parce que soo demee Mali sa njaboot nekk ci jàmm mais sa xel daal doo mën a def mission moo tax ñu góorgóorlu kaw boo dem léegi ñëpp ngi laaj pour delloo si seen njaboot ci biir kër gi ndax li ngay fay fële sécurité du ko am te fii lu mu bon bon da ngay gis say xam ne bu dara amee dañu ñëw topp seen njaboot bon nag yooyu dama leen gën a ñaax ngeen toppatoo yooyu ñu jox la char baax na mais booy dawal char war ngaa xam char ñaata lay jaay char combat ñaata nga xam fusil fetal yi yéen a koy am fort nga wax ni mu kontaanee parce que suñu ñu yor di tudd américains yi parce que référence lañu tudd yi bi ñu yor fetal bi gën a baax moom la ñu bu dee tàngal bi ñoo leen gis ni ngeen def war nañ gëm la gëm sa am solo la gëm say chef lu am a def mooy li leen fàttali mooy mu ànd yar yar ak teggin soo amul yar doo am dara soo amul yar doo amul dara yar boobu su ñu amee ngeen mën nekk benn ci biir seen bataillon muy bataillon commando li tax ñu xàmmee fu ñu woyee

ngeen xam ne loolu lépp nag pour suñu Sénégal yi Sénégal kenn mënu ko pour yéen kenn gënu leen am Sénégal bon aar ah, Sénégal yéen yéen a koy def bu ñuy wax rempart yéen ñoo ngeen a ko def bon nag mooy leen gën ñaax ngeen gën ci continuer ci li gën a am solo mooy aussi ngeen gën a seet waa seen bopp nit day natt boppam jëkkoon tal mu dem ci seet bi xool boppam ne fan laa toll fan laa toll ci liggéey bi ma ñor fan laa toll ak suñ ko ak yi fan laa toll ak fan laa war a jëm fan laa war a teg sama tànk fan laa war a teg sama tànk loolu su ñu ko defee rek mooy li tubaab wax introspection ngeen seetaat seen bopp ne man kat démb moom la te da ngay wax dem ba jeex gannaaw démb moom la jeex ndaxte lii lépp Sénégal moom ko jaral Sénégal war na leen ko jaral ndaxte. lii raam ci ñàkk bi li xew Mali xew Burkina Faso xew Mauritanie du ma toog mukk naa xew su ma dëkk damay toog naan ah su ñëwee de du ma wax lu ñëw mais su ñëwee a jël samay matukaay que bu ñëwee walaay soo ñëwee seetee du dem ndaxte kat bu ngeen fàttalikoo mooy li ñuy wax wolof dañuy wax ne ah burkiñ takkusaan daal boo ko gisee sa gént bu neew xam ne bu demee aussi day jël si waat ñëw fëlee aussi ñu ngi foofu mos nañ mu neex mos naa benn yoon mu neex mos ñaari yoon mu neex ma bàyyi ko kooku nag man gisuma ko fenn moo tax yéen ñi ñëpp ñun ñii aussi ñu ngi góorgóorlu ku nekk ci sa famille ku nekk ak li nga war a def lan la sonal war a am. am fetal bu baax war naa am loo xam ne bu ko dóor bal jàll mooy yére yu war am yu baax war naa am daal bu baax war naa am tiisi bu baax war nañ koo tàggat tàggat seen kilifa yi ñoo leen war a tàggat ak yéen ku ne ngeen cee def ndax yéen tam da ngeen war a jàngal a avancer parce que nit fu nekk dafa bëgg jëm kanam te boo jëm kanam da ngay tàggat pour mën loolu lépp ñu gisee xam ne lii nekk fii ci Thiès mbégte la pour ñun ñëpp mbégte la pour yéen rafetoon na jaar na mu ñëw tey wax leen ko tàggu leen ñaax leen aussi jox leen ci suma xalaat jox leen ndigal yoo xam ne kat bu leen xam ne ñi fi nekkoon démb dafa am leen jox mooy arme leen dégg dégg leen bataillon blindé ñaata cavalerie ñoo fi jaar ñu leen doon wax fii ñaata blindé ñaata commando ñoo fi jaar fii ñaata aviateur ñoo fi jaar fii ñaata fantasien ñoo fi jaar fii ba noppi garal bët moom bu dee géral bi li ñu wax dara leen en tout cas dara leen lépp ni téye leen ko téye bi ngeen war a téye li ñu ne commande boo fi ñëwee da ngay gën a kontaan parce que li ko ñëw ah sama nga li nga mën ci mbir ci at yi ñëw pour jeexal ak mu bees la di jàmm ñaanal jàmm seen njaboot ndax jàmm ci la lépp xel ngeen amee jàmm am wér gu yaram dara du leen ñëw maa ngi leen